xakim bi nee na nit ñi dañuy sànk seeni waxtu ci ñetti mbir yoo xam ne jaru ko ndax du leen jariñ dara te du changer dara itam seenu dund du leen soppil dara bi ci njëkk mooy topp di réccu rekk li paase am na lu lu jàlloon bëggoo woon mu demee noonu yaa ngi koy door a xalaat moo xam loo def te waroo koo def la wala lu jàll te bëggoo woon mu mel noonu la wala loo soxla woon te amoo ko woon la jërul topp di ko rëccu ndax paase na ba pare te doo ko mën a dabaatal bindkatu arab waxoon na ne laa ta sa fan na alama faatak li la paase ba pare jaratul nekk fi naan metti na ma nangam nangam too bàyyi boobu mooy bu njëkk bi bi ci topp mooy di jël sa bopp di ko comparer ñeneen di ko tollale ñeneen maa ngi nii diw mi ñoo war a yem maa diw di seet lu tax yemu leen xool nooy def ba war a yem ak moom bul jël sa bopp di ko natt ci kenn kenn kenn doonal ki nga doon te li nga war a def it nga def ko bàyyi yàlla mu def la nim la war a def nim la bëgg a def waaye yàlla amul lu ko war meel nim la bëgg a def mu def la noonu boobu mooy ñaareel bi bi ko ñetteel mooy di jéem a gërëmloo nit ñépp munta ne am na ñeen ñoo xam ne jar nañoo jéem a gërëmloo te yàlla moo leen situel boppam mooy ku ci ne waajur yi fexe leen a gërëm loo baax na yonent ci muhammad sallallahu alayhi fexe koo gërëm loo baax na nit yàlla ak boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo fi wuutu yonent yi di la leeralal sa diine di la teg ci yoon mat nañoo wut a gërëm loo ndax normalement buñ gërëmee seen gërëm loolu day fekk mu jóge ci ngërëmul yàlla waaye su dul ñooñu mënoo ne nit ñëpp ñëpp ñëpp nañ bokk gërëm ndax yàlla bindewul noonu jamono te nit ñëpp bokkuñu li leen di tax a gërëm kon daal ñett yi la ne ñu bari dañ ci sànk seeni waxtu te du leen jariñ dara du leen soppil dara itam waaw réccu lu paase ba nar caa yàq sa temps bi yëpp ba doo góorgóorlu ci li teew jéem koo rafetal ak li ñu ma jël sa boppit di ko natt ci ñeneen fàtte yàlla mi leen bind moo la bind te pourtant boo góorloo sax mën nga leen a raw bi ko ñetteel mooy di jéem a gërëm loo nit ñëpp bindkat ba nee na woon raayatun na eh, rida naa si raayatun laa tudrat gërëm loo nit ñi moom ab finalité la bu kenn mënta yegg ñu ngi sant ñëpp di gërëm di jégglu wasalaamualeykum wa rahmatullah